ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine ngi dóor ci suuf attention Sa ak Boy ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na ginnaaw bi ñu sante yàlla jullu ci yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke borom mbég megtaal di ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér ci noonu dama di nuyu internet yi ñi nekk ci réew mi ak bitim réew di kontaan ci ñoom bu baax a baax mbégte bi nag mooy leen indil li gën a fas ci xibaaru làmb mbay su ma ko fayee ñu daal àndañ leen li gën a fës mbay maa ngi lay nuyu jërëjëf Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam ci noonu nag revue bi Idrissa Gana moo leen koy may ak gàmmam bu complet boobu Kayaar ndox bi ñuy aar ndox mu sell mu ci ayib moo leen ma doon may revue bi mardi 8 juin 2021 journal suñu làmb ba xëyee ci xëtam mu njëkk combat bi war a opposé Balla Gaye numéro 2 le BGD de Guédiawaye ak Bombardier le B52 de Mbour du 31 juillet bañ jëm journal suñu làmb rek lañ ci xamle mooy c'est vrai règlement de compte Baye Babacar. mu nar a nekk combat bu neex nar a nekk combat bu metti tamit ñoom ñaar ku ci nekk yëkkati ay kàddu jëmale ci sa morom. ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye 2 nee na Bombardier nee na boo ñëwee fa yéenee xeex ak man su ma la jàppee dama lay duma daan la wante Bombardier yëkkati na ay kàddu nee na ko boo yaakaaree na combat bi mystique kese laa ci yaakaar yaa ngi nax sa bopp ndax damaa mën a bëree te damaa mën a xeex fa ma la jaarale woon bu njëkk foofu laa lay jaarale waat cosaan night club lañ jëm ginnaaw face to face ba naroon am ci diggante Boy Niang numéro 2 ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine ginnaaw ba mu li ko waral nag mooy divergence supporters yi am ba tax ñu jàppante fa comme signature ba mujjee àdduwut moo yegg si Tapha Tine lam cee xam ne mooy gis foon bu doy ba tax na moo tax mu delluwaat këram lam ci gisaat mooy ay agression yàq oto moo daal li mu gis jur ko dalul xelam moo tax mu daal moo tax mu ñibbi mhm. euh, ki nga xam ne moom mooy Boy Niang feelu ko ci wet gi nee na ko ak lu mën di xew ak lu mën di am ak foo mën di dugg le 8 août incha allah man ak yow daañu jàkkaarloo arène nationale te bu ñu jàkkaarloo man ak yow sama combat ci luy baax lay doon xeex mënu cee ñàkk daañu xeex bu dugg boîte vocale. beneen face to face boobu am nag te tàng jër moo bi dox diggante kii Forza ak Pakala fee ci 2STV Mbaye Babacar. gannaaw ba ñu bëree le 4 avril 2012 la ñu mujjee bëre jàkkaarloo nan barki démb fële ca 2STV ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Pakala yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci forsa nee na ko kuy wër tàppet ba daje ak yow na dëpp ndax yow tàppet bu mag nga yaa gën a tàppet ci mbër yi forsa tontu ko ne ko. loolu ba mu juddoo ba léegi ñu ngi ma koy soog a wax maa ngi soog a dégg Forza tapet la te li ma li ma jaaxal sama combat ak yow bi passé dama la doon dóor di la dóor ba ngay dugg ci biir nit ñi di la dóor ngay daw euh, pakalan ne ko làmb duñu laajte ki dóor wante ki daan la ñuy laajte mu nar a nekk combat bu metti combat ba nga xamante ne bii bataille psychologique bi commencé na. commencé na mu tàng jër ginnaaw noonu nag Père Max Mbargane mu génnee wax ci combat bi Ahmed Konaté coach Kaye baax wax. booy soosi daal di wax tey nag ki xëy àddu ci journal Mbaye Babacar mooy Malick Thiandoum borom TFM lam ci xëy na mu ngi décrypté combat bi am na 19 diggante Franc doomu parcelle ba ak Tyson 2 lam ci xam ne nee na ki di Tyson 2 ku war a ragal Franc la ndax Franc adversaire de taille la. Malick Thiandoum moo def jàngat ci boobu boobule combat diggante Franc ak Tyson 2 de na Franc mbër la ma nga xamante ne bii. dafa nekk ci dynamique de victoire teg la juróom-ñeenti victoire ba pare toll ci guddi ya nga xamante ne bii mbër mu naqaree daal la nee na Franc nag ni mu war a bëree mooy combat rapproché combat ba nga xamante ne bii du sori ki nga xamante ne bii moom mooy Tyson 2 mu ñëw ci Tyson 2 nee na mbër mu mën a xeex la am doole mën a bëri wante li ko arrangé ci combat bi mooy combat distance dafa war a garder distance bi heure bu yëkkatee loxoom pour dóor ki nga xam ne mooy Franc mu mën a dal te loolu nag Modou Anta bu Thiès Diène Kaïré les 2 Yékini Junior journal bi na muy xëy di samp laaj nee na quel adversaire pour Sokh ginnaaw ba mu daanee Gàmmu Gueye ñoom ñeent ñooñu kuñ ci jox Sokh mu nar a nekk combat bu metti wante suñu làmb nee na Diène Kaïré ak Sokh combat la ba nga xamante ne bii final la nar a nekk ndax Sokh dafa daan Gàmmu Gueye jën Kaïré daan ki nga xam ne mooy Modou Anta kon ñoom ñaar bu ñu dajee final bu neex lay doon ca beneen face to face lañ jëm Alioune Seye numéro 2 ak Issa Pouye ginnaaw bañ jàkkaarloo ci féete 2STV ku nekk wax li nga xam la ca journal bi wax nag mooy seen duel épique des techniciens Baye Babacar. mën na la nekk combat bu neex tamit diggante Alioune Seye ak Issa yi Issa yi toog na juróom-ñetti at gisuñu ko ci làmb ji euh, ñoom ñaar nag ñu jàkkaarloo barki démb fële ca 2STV waaye Issa Pouye li mu yëgle mooy li mu bëgg. mooy xeex ak ki nga xamante ne bii moom mooy Aliou Seye 10 minutes ya nga xam ne arbitre day soufflé rek bàyyi leen ñoom ñaar ñuy xeex amul jàppante amul arrêt amul dara xeex rek loolu la bëgg wante Aliou Seye nee na ko yow ñem woo xeex ak man ndax man boo xeex ak man dama lay dóor nga daal di wàcc. ca Sa Thiès ak Moussa Ndoye lañ jëm mu mel ni weekend bi moom face to face tàngoon na jër ca place ya Moussa Ndoye Sa Thiès ñi nga xam ne dañoo yàqamti jàkkaarloo ñoom ñaar ku ci nekk. libérer say supporters ndax ku ci nekk defet nga jógee Mbaye Babacar. ñoom ñaari nekk ay mbër ya nga xamante ne bii macha allah ay ay ay ndaanaan lañu Moussa ak Sa war a am incha allah le 26 juin foofu ca arène nationale suñu papa Gaston Mbengue taxawal boobule combat Sa Thiès nee na ko su ma la jàppee ci 9 secondes laa lay liquider tegeel la nële ndax dama yàkkamti damaa bëgg a dem ci leneen Moussa na ko xam nga ne. man nekk ma mbër ma nga xamante ni bi dañuy ñëw patam patam mais ma dem su ma la jàppee man tamit incha allah dinaa xeex ak yow xeex bu méttee méttee méttee. te noonu nag bon nouvelle sax la ñuy wax bon nouvelle nouveau papa ki nga xamante ne nii mooy Thiat. Thiat bu Boy Bambara nag Mbaye Babacar am na tur tànk. Thiat Boy Bambara nekk papa fi mu toll nii am tur tànk wante comme ko tuddee moom mooy euh, ki koy tàggat ci wàllu. Euh, mystique muy El Issa moom la tuddee doom ji mun ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax mu nekk magum diine te it euh, mu dund ba ay waajuram fekkee njëriñam. yàlla xale bi dund bu baax a baax te am ndey ak baay comme ni ko suñu mag yi di waxee journal record lañ jëm la muy xëy di xelal nag moo dafa delluwaat ci face to face ba amoon ci Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 nee na Pierre pompe à gaz voiture saccagée Tapha Tine Boy Niang l'image pitoyable de la lutte maanaam violence bañ ca bañ ca gis daal jëmalul làmb kanam. mu nekk ay image ya nga xamante ne bii kenn rafetlawu ko ci rawatina nit làmb yi. ndax lañu fa gis mooy ay oto yu ñu yàq ay scooters yu ñu sàcc li nga xamante ne bii moom mooy ay agression nekk image ba nga xamante ne bii rafetul ci image u làmb ñu doon xaar face to face bu neex na diggante Tafatine ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang mais Tafatine mu jéewul yegg si Boy Niang rek moo fa nekkoon sekk ay laaj ak i tontu ak journaliste yi. ma la ñuy jeexale ne rek mooy arène nationale lañ jëm ginnaaw ba soq daanee ki nga xam ne mooy Gamou Gueye journal ba xëy na di wax ak soq nee na ko. ndax compte à rebours bi nga xam te ne mooy rattrapage ba nag lancé wu na ginnaaw ba mu jógee ci ay défaite daa ñëw wanewaat boppam daal di yéeg taxaw place am. soq ba mu gannaaw ba mu daanee gàmm gay euh, suñu làmb nee na fi mu toll nii affaire am mu ngi commencé baaxaat buntu làmbam. ubbeeku na adversaire yi ñi ngi ci kanamam mooy xool kan la ci war a bëreel wala kan moo ko ci arranger kon daal mën nanoo jàpp ne Sokh victoire bu mu jëlee digganteem ak Gamou Gueye ubbi na buntu làmbam bu baax a baax mu ngi noonu noonu la ko waxee ne na ko compte à rebours bi lancé wu na ca noonu damay kontaan ci yow Mbaye Babacar bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb mbay looy tàggatoo bee xanaa jaajëfal mbokk internet yépp yi ñuy topp ci Leewtoo TV dig leen daje incha suba ak jàmm wante di souhaiter un joyeux anniversaire à Bilal Ndiaye l'infatigable xale bi nga xamante ne bii macha allah mën na liggéeyam yaru na baax na jox na ñëpp cër ñu koy ñaanal anniversaire bi mu feetee ko at yu baree baree bari di ko ñaanal lépp luy objectif am ci euh, carrière am suñu borom jàppale ko mu atteindre ko ci jàmm ak salaam. muy noonu nag Bilal Ndiaye la Ndiaye jaata Ndiaye dina nga happy birthday di kontaan ci yow lu baax a baax dundal dundal ba doyal baax na yaatu na téy na hmm? nit ku calme ni Bilal ah néew ma bariwul de mais euh, néew ma euh, yombul waaye bari na bilaal xale bi yaru na. mën na li muy def tey na boo liggéey day liggéey ba mu jeex bu kaf jotee mu kaf ba mu jeex waaye nag su may nelaw te nga may photo dañ nelaw mu lay photo ah coono gi moo may jàppee damay kontaan moom di ko ñaanal gudd fan gu wér a wér moom Bilal di kontaan moom naa ko réussite totale laa koy ñaanal la noonu laay def sant sama caméra woman bi Fama ak Yacine Fall bég ci ñoom lool lool lool jox leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajëf violence non ñaar saakees xeex na ñoom ñaar saakees si yoon wàcc jël na tafaatin dóor na tafaatin ngi dóor ci suuf attention ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw saakees boo ñaar daan na